jigéen ñi ak yàlla sunu nettali tey ji mooy jigéen juy mooy yàlla sotti na yeesu laj koloñ nettali bi mu ngi cosaanoo ci luk saar juróom ñaar aaya fanweer juróom benn ba juróom fukk nettali bi mu ngi xew benn bés bu am njiitu diine woowoon yeesu ngir mu reere këram yeesu dem fa daldi tëdd fa ñuy lekke ca gox yooya ca jamono yooya bu nit ñi daan lekk dañu daan soonu jéen jigéen ju dëkke woon bàkkaar ca dëkk ba dégg na yesoo nga doon lekk ca kër njiit ma mu indi ab njaq bu defoon laj koloñ bu jafee am mu taxaw ca gannaaw yeesu ca ay tànkam muy jooy noonu ay rangoñam tooyal tànk yéesu mu fomp leen ak kawaram fóon tànk yeesu tuur ca laj koloñ ba bi njiitu diine mi doon ganale yeesu gisee li xew mu ne ci xelam bu nit ki doonoon yonent kon dina xam kuy jigéen ji koy laal ak ni mu nekkee bàkkaarkat yeesu ne ca tonn dal ne fariseen ba simon am na lu ma la war a wax simon ne ko waxal kilifa gi yeesu ne ko dafay amoon ñaari nit ñu ameel bor benn leblekat kenn kaa ngi ko ameel téeméer junni ci xaalis ki ci des fukki junni waaye kenn ci ñoom mënu koo fay noonu mu baal leen bor ya ci ñaar ñooñu nag kan moo ko ciy gën a bëgg Simon tontu ne ko xanaa ki ñu baal bor bi gën a bare Yeesu ne ko àtte nga dëgg daldi walbatiku ca jigéen ja ne Simon ndax gis nga jigéen ji tugg naa sa kër te joxewuloo ndox ngir raxas samay tànk waaye moom raxas na samay tànk ak ay rangoñam ba noppi fomp leen ak kawaram bi ma agsee fóonuloo ma waaye moom bi ma duggee ba léegi bàyyiwul ci di fóon samay tànk defuloo diw ci sama bopp waaye moom sotti naj ko ci samay tànk moo tax ma di leen wax ne su wonee mbëggeel gu réy nii dafa fekk ñu baal ko bàkkaaram yu bare waaye ki mbëggeelem néew dafa fekk ñu baal ko lu tuuti Yeesu daldi ne jigéen ja baal nu la say bàkkaar noonu ñi doon lekkandoo ak moom dox ci seen xel naan kii am sañ-sañu baale bàkkaar mooy kan waaye su ne jigéen ja sa musal na la demal ci jàmm fii la nettali bi yam nanu jàng aaya bii sunu nangoo sunuy bàkkaar ci kanamam fekk kuy sàmm kóllëre la te jub ngir baal nu sunuy bàkkaar te sellal nu ci lépp lu jubadi benn yowana saar benn aaya juróom ñeent